Mulher! lu bees am na ci tongal gi ci wàllum alal ju lewul ji dee ah, waaw waaw tribune yéene kaay ne ñooñee nga xam ne ah, la ko wax tere gi nga xam ne nag maanaam tere woon nañ leen ko daal ñu génn réew mi lée ñenn ñoo xam ne kon nañoo nekkoon ca nguur ga fi ne na ca bailleur de fonds la jóge de déedéet wala boog abdil la ko day mooy maanaam oyofal nag daan yi nga ne kon ne kon ay kilifa lañ fi yoon yéene kaay gi ne bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar la waaw waaye nag jàppal na ñenn ñoo ay ministre lañ woon intérieur boo woon di maître Ousmane Ngom ak kii yore woon kon urbanisme di Omar Sarr boo leen gisee ñu bàyyi la nga Bibo Bourgi dañ koo tere woon mu tukki Pape Samba Dia atte dañ ko tere mu tukki via ay dañ ko tere woon mu tukki ak ñeneen ak ñeneen dañ leen tere woon ñu tukki ca jamono ah, ngay élection direct info ak le soleil yéen kay Macky Sall day président jox na dëgg nag opposition ba ah, waaw direct info ne opposition boobee waaw yàggul dara daal ñaari poñ la ñu joxe woon de te bloqué kon wàllum négociation ya ca wàllum code électoral ba yéen kay gi ne waaw waaye nag mel ni daal loolee ñu koy bëgg passé le populaire ak le quotidien kay Macky Sall day atte na kon ca digg ba laas ne Macky kay enquête génn wet may leen ma ma wax leen opposition bi ci boppam laa lay wax ni nanguwul wanaasu dogal bi nga xam ne kon moom le président jël Babacar Fall bokk ca opposition boobee nee na lii dellu te ginnaaw la i maa la ko wax parce benn yoon ngir ñu jëlee fi daal maanaam liste conseil yii ca ville ba waaw il faut que président ab décret pour xool nag nan la ñuy falee kon maanaam conseil yi lalu kon ci liste proportionnelle ba parce xam nga majoritaire raw gàddu président Macky Sall ci boppam daa bëgg a dàqaat élection yi lée laa ilaha illallah le quotidien yéen ne de président Macky Sall kay le 29 juin bi la jàpp de la opposition mi ñoom jàpp nañ ne président Macky day ay nitam la àndal bu ñu sukkandikoo nag ci Abdoulatif Coulibaly ci yéen a ma jëmbal jàngi nee na juróomi tunda ngi ni le seeni conseil ci geneenu façon lañ leen di fale muy Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque ak Thiès maanaam dund yoo yee dootul yoo yee ña dund yooyee xam nga lii ab ngir daal di kon kii di Khalifa Sall Idrissa Seck ak Alaaji Malick Gakou laas Khalifa Sall day ngir mu faluwaat fii ah, dana rey boppam maa la ko wax de parce bu dee moom la ñu nar a yi Khalifa Sall laa ngir mu nekkaat maire dana góorgóorlu de Omar Faye ci la populaire ne tolluwaay réew boppam moo doy waar Sénégal amatul corniche i ma ne la amatul corniche laa la wax parce que corniche ouest pare ngir francophonie bi lu ci tolloog ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay hectare yoo xam ne nguur gi jébbal na ko groupe alliance marocaine bi la ngir këru ndimbal jaboot ya ca jam ñaa jox waaw ñaata lañ leen ko joxee xamuñu ko lu tax ñu jox leen ko xamuñu ko waaye te ngeen ne gis nga président Macky Sall ba mu dikkee ak léegi ni le waaw entreprise yi nekk ci biir mi day amatuñ dara dara dañuy sous-traité rek maa la ko wax marché yu wa yëngu ca nee na ñin fi mu nekk nii ab colonisation foncière suñu suuf si si boppam kon lañ bëgg a privatiser la wax Cheikh Sadibou Diop M23 patriotique ci le populaire ne gis nga xaalis bu doon mooy saafara kon coow la ca Casamance gee guerre ba waaw kon maître Abdoulaye Wade li jënti ne ko yàgg na laas de demam nga ca Casamance goo gee moom président Macky Sall ku ci nekk man maa wax lan la la Macky Sall jox neexul ba neexul mais nga Macky Sall mi ah jox na dëgg nag ñu naan Macky daa nay ñu jox na leen dëgg xoolal ba muy dalal kon waa Casamance googee waa APR toll ci juróom-ñetti fukk ci ay doomu aadama Macky Sall million la yëkkati daal di koy jébbal Benoît Sambou ngir mu ko ñooñee ba ñu séddoo ku ci ne juróomi téeméer nga am la ilaha illallah la ilaha illallah douze mille cinq cent maa la xoolal ma ñetti président fay ko ñaari millions téeméeri junni la leen jox baas laas mais kilifa diine na ñu bare ba mu leen dalalee ñaari millions la leen dox waaye loolu nag mooy la mode du Macky laa say wax du samay kaddu de directeur infore coowal Mécotrans ci pooru Dakar gii un eh, bi nga xam ne moom la Mamadou Lamine Diallo di def ak ñamu àndal day juróom fukki député ngi nii d'accord ci Cheikh Anta lañ àndal waaw député Awa Niang deuxième question nee na xanaa xamoo ne attaqué Cheikh Anta attaqué président Macky Sall la yéene kaa gi kon yóbbu leen ca Tchad benn journaliste RFM benn journaliste Le Quotidien benn bu enquête ak benn bu West Africa démocratie waaw waa chambre africaine gee leen de tribunal yeneen extraordinaire yi la ñu nekk xaalis dugg ca rax ci dool lu yoraat journaliste ya loolee ay avocat yu Hissène Habré nee journaliste yoo yee seen caacum métier mi da koy tere benn ñaar dañ dul mën seen bopp wàllum indépendance libération yéen a kay ne Abdou Khadr Lo ko de ne paasaluñ benn journaliste yoo bu ko ca càdd yéen a kaay gi ne bu dee weddi na ko ba mooy ñin waa libération day bokkuñ ci tukki gi demuñ de ñaar même bu dee tamit ñoom organiser wuñ tukki googee journaliste dem nañu ñett damm damm yax noo ne nous démentissons mënu koo weddi di enquête yéen a kaay ne Masaalikul Jinaan waaw door fayu bu Serigne Touba balay sa barke Rasuulaay Abdoulaye Wade nag ndeysaan jaajëfal nañ ko démb ca ndaje ma Khalifa Sall nee na dana ca dugal loxoom tribune yéen a kaay ne Khalifa Sall lu ci tolloog benn kilomètre ak ñetti téeméer ci tali yoo xam ni kon dana ko def te jumaa joojee ak lu ko wër maa la ko wax de ci teewaayu sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké enquête yéen a kaay ne déggoo ma de Abdoulaye Wade démb gërëm nañ ko fa xalaat nañ ko fa lool moom mi nga xam ni kon moom moo leen jébbal nag maanaam suuf soosee ñu tabax fa Masaalikul Jinaan libération yéene kay ne avocat bi lim def doy na waar bett na ñëpp avocat boo xam ne dama ne mën a waaraate jàngale dee leen doxalee nii donneur de leçon la daal waaw saay bu waxee rek ma ngay joxe ay leçon di jàngale bett na ñëpp nag parce que avocat boo bee xaru si jabar jala takk de laa ilaha illallah ah maa la wax loolu de dama ne la jabar jee tax mu xam kon koo kee avocat ba takk na def na ko ñaareel moo taxit kër ga fi mu nekk nii ma ngay jax-jaxi miti noonu lool waa kan mooy avocat boobee libération yéene kay ne avocat bu am taxawaay la ay kan mooy avocat boobee libération yéen kaay ne xeesul xeereeru avocat bu ñuul la ay waay kan mooy avocat boobee libération yéen kaay ne ku mën a solu la ay waay kan mooy avocat boobee libération yéen kaay ne ku mën a làkk kàllaamay français la il manie bien la langue française ay waay kan mooy avocat boobee <laughs> avocat ba takk na xaritu jabar ja ñaareel ñaareel na xaritu jëkkëram waaye awa na la jig bu la jigee loo yootu jot ca awa na la jig alaaji ñëwal awa na la jig la jige loo yootu jot ca Avunacık.